télé bi ñu nuru ba noppi duñu dajale ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen wax ne leen kullu aamin wa bi xayr ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla koor gi ñu génn lépp lu ñu ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul ci barke bi sallallahu alayhi wa di leen wax ne leen woor nañ ko ci jàmm wooree ko ci jàmm yàlla nañ ko wooraat déwén te kenn bañ a manqué ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal bitim réew di ko ñaanal mbooleem jullit yi mbokk yi di ñaanal suñu xalif généraux yépp yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi ci wàllu diine di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla taxaw dolli ko aar dolli ko dimbali ñaanal ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke moom itam yàlla na ko yàlla taxaw aar ko dimbali ko noonu lañ koy ñaanale Cheikh Mouhamad Mahi noonu lañ koy ñaanale tabaarakallahu Chérif Makhtar Laay noonu lañ koy ñaanale aussi Chérif Bekay Kunta noonu lañ koy ñaanale na Bachir Taal ak waa kër maam Chamarul Fuutiyu Taal yëpp ñoom Thierno madaani ak ñëpp tabaarakallahu non nii lañ koy ñaanale euh, tabaarakallahu waa Canaba noonu lañ koy ñaanale waa Madina Gunaas ñaanale ko tabaarakallahu waa Sokone bàyyiwuñu benn këru diine ñoom ñëpp waa kër maam El Hadji Ndiéguène ñu leen di ziyaara bu baax waaye di dox itam di ziyaara di ndokkeel ci bés bu tedd bi sëriñ Maodo si bu maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ak njabootu maam Cheikh Al ñaan yàlla dori dëgëral ko moom itam jàppale ko dimbali ko noonu la ñaanale itam sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy bu daayira Moustarchidine moom itam ak njabootu maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum yëpp yàlla na yàlla dëgëral leen barkeel leen barkeelal leen defal ko tabaarakallaahu mbooleem njabootu maam Seydi El Hadji Malick ak kilifa diine yëpp di itam ñi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi yàlla may leen ndam may leen jàmm ndax bu ñu amee ndam am jàmm réew mi am ndam am jàmm kon jàmm jooju yàlla na ko yàlla dott ci biir réew mi ak bitim réew ci barke bi sallallahu alayhi mbokk yi yàlla daf ñoo séddee Sénégal ñun ñëpp ñu am ci waar wu ñu bay ci gaal gi réew moo xam ni suñu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul jaar na fi liggéeyal fi diine liggéey bu mucc ayib liggéeyal tarixa murit liggéey bu mucc ayib ba ferñeent yi mi ngi nii di daagu ci biir réew mi réew moo xam ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu daf fay jaar moom itam liggéey fi liggéey bu mucc ayib liggéey ko ci wàllu diine ji ci wàllu tariqa bi ak ci wàllu mbokk gi lépp loo xamante ni mënoon naa rafetal taaral lislaam rek maam Sidi Hadj Malick def na ko noonu ni nga koy waxee ci kilifa diine yëpp ba tax na ñu dem itam bàyyi fi seen njaboot ñu fedd li suñuy cofeel ak suñu taalibe ci njaboot goo googi ñan yàlla dëgëral leen euh, te loolu li muy wundu mooy réewum Sénégal gi ñu yàlla sedde ñu bokk ko ñun ñëpp réewum jàmm la réewum dal la léeg-léeg ma toog ba ci yàgg di posé wu question di laaj sama bopp naan ndax man Sénégal laa dëkk wala ndax dañoo jël suñu dëkk rocci ko indil ñu beneen dëkk te yëguñu ko sénégalais boo xamante ne senegal goo xam ni la nekkoon cëslaayam mooy yar teggin ak kersa moo xam góor la moo xam jigéen la bu njëkk bu jigéen mësaan romb ci grand place gis fa ay góor toog fa dafay teggi ngir am kersa bu njëkk ndaw sañul woon mag di wax nga koy tontu moo xam sa baay la walla sa ndey wala ku la mat baay walla ndey bu njëkk mbokk yi am na loo xamante ni kenn sañu ko woon wax kenn sañu ko woon jëf waaye alquran fa mu nekkoon lam daan defar lam daan leeral lam daan gindi jógu fa ba tey ñu war a delloo siwaat ñun ñëpp suñu xel jëlaat li nga xamante ni moom lañu yàlla may ñu càmbarka ka ba xam lan lañu dunde ko te nag léeg-léeg nit am loo xam ni du ko xam balaa mu koy xam mu ñàkk ko mbokk yi nañu delluwaat ci alxuraan ca la mu jàngale ci comportement boo demee ci suratu xujuraat yàlla jàngale na fa comportement doomu aadama bi mu war ci kanamu kilifaam te kilifa yi nag ci jiitu mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ci wàllu waxin ci wàllu doxin ci faisabilité ak lépp bu ngeen di wax ak sang bi bu leen fexe seeni baat di gën a kawe ay baatam di gën a kawe baatam léeg nga jëf jëf gu rafet am mauvais comportement ak yonent bi la nga jëfoon yëpp yàlla nee na mu màbb boo ko yëg kon nag yonent bi bu muy dem daf ñoo joxoñ boroom xam-xam yi ne ñoom boroom xam-xam yi ñoo wuutu yonent yi boroom xam-xam yooyu nag la war mooy cëral leen mooy xormaal leen cërëg xorma nag li koy joxe mbokk yi mooy dellu ci alquran lam la sant may la ko nga def ko ndax innamal ñu baal ñu innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum kon nag li lay taaral jikko la te jikko yooyu ay jikko rafet la ñun ñëpp war nañu defaat inventaire examiner waat suñuy bopp suñuy jëmm ci suñuy jëf ak suñuy wax ñu méngale ko ca gannaaw la weesu ba xam jar na joyanti wala jarul joyanti su jëree joyanti ñu joyanti ko ndax kat subhaanahu wa taala daf ñu booleeg benn yonent tagge ko ci jikko muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azimin mais parce que dafa am jaar-jaar bu defar ay jikkoom muy subhaanahu wa taala te moom ma ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla yar na ma yàlla moo ma yar yàlla bi ma yar rafetal na sama yarin kon jàngat bi nga ci am mooy ki la war a yar war na am ay jikko yoo xamante ni mënees naa yar nit ci màndu ci ragal yàlla ci tabe ci muñ ci am sutura ci am yar ci am respect ci am xorma ci dëggu ci sellal ndax jikko yooyu mu jël mu ne ci moom bu ko dottee ci yow nga yaru bëri na xale boo gis mu ñàkk yar parce que ñàkk waroon yar ñoo échec kila la war a yar nag bu yaruwul wala mu échec yow fan ngay yaro moo tax may faral di wax naan alxuraan buñ ci référé woo rek jub buñ ci rafeere woo baax di ñaan yàlla itam saay bu ñu jullee mu soppi ñu suñuy jikko yu bon ndax ku ci ne ci ñun am nga jikko yoo xamante ni neexu la mais yow yaay def effort nga dindi sa jikko yooyu xeex ak moom ba mu dañ wala bu dañul mu wàññeeku ba yeneen jikko yi nga xam ni mooy jikko yu baax yi dominer ko mbokk yi ñu góor góorgóorlu itam ci way jur yi bëri nga léegi ci jamono ji way jur booy gis muy plaindre ci ñàkk toppatoo jikko doomam jikko jur ñàkk toppatoo mbokk yi yàlla day ba mu dogalee ne amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu ga di jëriñ ñàkk jaamu nga di lor lam ca teg mooy jëf leen njëkk jëme ci seeni ñaari wayjur te seen ñaari wayjur yooyu bu ñu dundee ba kenn ci ñoom ak naax dikkal ko walla ak mage bu ci wax ak kenn di ko gëdd walla nga koy wax ëf walla nga koy ñàkk kersa walla ñàkk teggin alxuraan nee na waqul lahuma qawlan karima yàlla jàngal na la teggin la jiitu sax lii ndax ba muy yónni yontu yàlla Moussa ca Firawna daf ne ko ki ma lay yónni da gëmuma ku beew la ku yëg boppam la waaye nàmpi bu ngeen demee fa quulaa lahuma qawlan layyinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha ndegem nag koo xam ni gëmul yàlla beew la yàlla di santaane ñu wax ak moom ci teggin ak respe ak dal ak nooy waxuma la nag ñaari way jur yi nga xam ni ñoo la jur sonn ci yow bi nga dul dara bi nga nekkee dara bi nga mënee bi nga mënul dara bi nga mënee dara ñoom yëguñu sax mën nga dem ba mën say jur yëguñu ne yow mën nga walla mënal nga leen moo tax su fekkee ni ñu ngi bàyyi xel li nga xamante ni moo ñu lié ci suñuy diggante ñun du mën a nekk fekk bàyyiwuñu yàlla xel mi ñu digal bu la yàlla diggalee nga xool nga xool nga xool lam la digal lépp di njëriñ nga ne doo ko jëfee kon yow dese nga te yàlla mi lay digal chaque jour moo ko xaarul ci yow dara mais dafa bëgg nga jëriñu àdduna jëriñu àllaaxira kon mbokk yi bés bii bésu baalunte xàq la nañuy baalunte xaq ci suñuy biir mbokk yi nañuy jéggalante nañuy jëllalante nañuy nëbbalante ay ayib nañuy suturaalante réew mi ñoo ko bokk kenn mënu fi génne sa moroom politique du animosité mais adversité la ay idéologie yu wuute la nii laa xalaate nii nga xalaate suñuy xalaat mën naa jiyoo nag waaye ñun waruñoo jiyoo le président de la république wax na ci discours am réconciliation des sénégalais jot na mag ndey mag ak rakk yu bokk benn kër bokkuñu candidat bokkuñu ki ñuy àndal politique bi nag bu jeexee ngeen joxoon joxonte doxo xam na li ngeen bokk moo gën a fort politique junni yoon muy direct te léeg-léeg di nga sonn ci di nga sonn ci nit te ka nga sonnal bi ni sonnal nga ko moo xam pouvoir la moo xam opposition la léeg nga sonn ci yaakaar ci dara te la nga ca yaakaar doo ko am kon nag il faut que ñu jiital yàlla il faut que ñu bàyyi ko xel waaye bàyyi xel li nga xam ni mopp loolu yëpp njëriñ muy ak mbokk bàyyi xel li ëpp loolu njëriñ lépp muy dëkkandoo sa dëkkandoo ànd ak opposition yow nga ànd ak pouvoir wala mu ànd ak pouvoir nga ànd ak opposition kii ñu gañe ka kii gañe xam nga lu ngeen war a def joxante ndox kii nga xamante ni leader dañ ko gañe wala candidat mu félicité ki gagné ñu àndaat ci jàmm continuer xam ne loolu benn étape la ci seen dund ñu romb ko def leneen. su ma waxee nag ci way yi nit dafa ñëw ci man ne ma man de sama doom waxuma la may ma sax waaye dama koy sax ragal ñaan ndax nam may tontoo mu ne ma sama doom waxuma la sax. may la may ma waaye dama koy ragal ñaan ndax na mu may tontoo léeg-léeg nit ne la man itam sama doom su ma ko ñaanee balaa mu may may wala balaa mu may defal faw mu laaj soxnaam xalaatam ma defal ko am déet wala ñaata laa koy jox ci jur woo xam ni ba mu lay jur kenn fekkewul ba muy sonn ci yow kenn fekkewul kon wax fid lahuma janaaxa dulli min rahma yërmande googu nag sa waggi yërmande yooyu mi ngi tàmbalee ci dab bànneexam saytu wér-gu-yaramam bu mu xiif bu mu mar bu mu rafle bu mu sonn loolu étape la yoo xamante ni boo ko jéggee doo xam njëriñam nag bi ngay dund waaye wallahi mbokk yi bu la sa jur wanee gannaaw rek nga xam lan mooy ñaanu wayjur boo ko amee nga xam lu ñaanu wayjur boo ko ñàkkee nga xam lan mooy ñàkk ñaanu way wayjur su fekkente ni nag da nga jël sa soxna mu am wàll ci yow am lu ko lislaam sédde mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem war nga bàyyi xel tam sa way jur wi nga xamante ni bu la indiwul woon ci àdduna yar la toppatoo la defar la ba nga baax ba soxna mën a mën laa gis bëgg la ba sëy yow kon way jur du moroom way jur sang la nañu jaamu soxlay wayjur yi nañu dab seen bànneex nañ leen toppatoo ndax amaana soxna soosu di daw ca gannaaw wala ngay daw ca gannaawam mi ngi xënt loo ko jox mu jox ko woy juróom mi ngi xënt defal wayjuram ngir wut way ba pare xañ la yow ab way mbokk yi am na loo xam ni kenn du ko caaxaane te nag wa wassayna al insaana bi waalidayhi xamalathu ummuhu wahnan ala wahn wala boog xamalathu ummuhu xusnan ala xusn wa wassayna al insaana bi waalidayhi xamalathu ummuhu kawsal baali wasana insaana bi waalidayni xusnan lan moo tax mooy xamalatu ummuhu wahnan ala wahn dénk nañu doomu aadama mu def njekk jëme rafetal jëme ci ay juróom mi nga xam ne ëmb na ko naxar ci kaw tiis ku ne xam ne ëmb ni mu mettee ca weer wu njëkk ba ba ca juróom-ñeenti weer moo xam jamonoy tànk la moo xam jamonoy sedd la loxo rek bu la ko nit tegee loxo rek bu la ko nit tegee lu yàgg mu diis ci yow waxumalaa nag bakkan ne ci biir di màgg di màgg di màgg ba mat mu war dem matu te fa mu matoo bakkenam xajoon na ca dundam xajoon na ca mu bàyyi lépp ngir yow mëntul dem xew walla boog bu demee na mu waroon solo du ko solo parce que nga sañse ba pare boot sa sañ sañse yàqu léeg nga wàcc ko léeg-léeg xale bi tuur dugub ci ay yéreem mu jóg defar la léeg nga tuur ndox mu jóg du nelaw guddi sonn daj ci lu ne ngir xaar ëllëg sama doom ji màgg ba noppal doom màgg yaay gën a sonn wala baay gën a sonn doom joojee war naa xoolaat boppam boo waxee yaay pare nga wax bàyyi bàyyi mi nga xam ni guddi ak bëccëg suba ak ngoon saay bu xëyee mu ngi daw lu mu indil njaboot gi xamul tàng na xamul sedd na xamul xiin na xamul mi ngi taw xamul guddi na xamul bëccëg moom daal mi ngi def kem kàttanam njëriñal doomam ak njabootam bu ñëwee am na waajur yoo xamante ni danañ toog ay wala bokk weekend ba weekend lañuy añ seen kër parce que fa ñuy liggéeye heure ba ñuy wàcc añ du leen fa fekk danañ joxe seen dépense te duñ ci lekk bëri góor yu bëri yuy joxe seen dépense te duñ ci lekk boo defal ndànk bu dul weekend benn repas la ñu lekk seen kër muy reer te teewul lépp lu ñu mën ci sonn jënd ravitaillement bu mag def seen alal ñu ngi koy def ngir béggal njaboot gi kon mbokk yi njaboot goo gi nañ ko fonk dañu fonk suñuy wayjur ñu ngi ñaanal yàlla bu baax suñu wayjur yi nga xam ne ñoo jiitu suñu wayjur bopp muy ndey di bàyyi yal na yàlla xaaral àjjana ak wayjur mboolem jullit ndax balaa ngay xam wayjur fa mu toll ci yow rek mu wan la gannaaw kon nag comme bésu kawrite gi bésu njéggal la bésu bànneex la bésu sutura la nañu dem ut bànneex ci suñu wayjur bégal leen ziyaar leen ziyaar leen sàkku ci ñoom ñaan baalu leen àq doom yi dañuy faral di baalu àq waajur yi nañuy faral di baalu àq waajur yi ndax jur yi ñuy baalu ëllëg nañuy taxawe ak ñoom moo ñuy yokk moo ñuy defar kon nañu jaamu yàlla nañu ko yàlla sante suñu kemtalaay kàttan ci suñuy wayjur suñuy dëkkandoo suñuy mbokk suñuy xarit mbokk yi koor gi jeex ñu war a dugg ci beneen cycle beneen étape étape bi ñuy dugg lépp lu ñu liggéey yàlla yàlla lu ñu liggéey suñu bopp ci koor gi yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla ñu ci yàlla defal tawfiq bu yaatu defal ñu najaax tàmm ala wajil xayaat ñu ngi sant ñëpp di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp di ziyaarawaat bu baax suñu soppe Euh, tabaarakallahu sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy bu daayira Moustarchidine wal Moustarchidaat di ko ñaanal yàlla tawfiq ak najaax tam alajul xayaat ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saari lmuslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu